def nañ benn enveloppe li ñu dégagé peut-être enveloppe boobu presque cent millions de francs CFA loo xam ne fondation bi def na ko ci màggalu 2021 bi ni ñu demee barki demu dem nañ def benn action boo xam ne dañu dem jox ko comité d'organisation bi nga xam ne Serigne Bass Serigne Bassirou Mbacké moo ko jiite ñu xalaat ne action yi ñu war def ki Touba lépp xat na mënuñu fu ne ñu dem fa def fa dara nañu regrouper ñi nga xam ne mën nañu ànd ñu regrouper leen jox leen ñu xalaat ne comité d'organisation war nañ leen a jàppale ñu dem jël benn jël lu mat juróom-ñetti nag ak ñaari gileem ak fukki tonni ceeb jébbal ko Serigne Bass pour comité d'organisation bi. yamul si loolu ñu jël mu xaddimatul xidma bi nga xam ne moo jiite jumaa ji moo yore jumaa ji yor liggéey bi ñoom it dañ leen war a taxawoo ñu jeex ñaari nag ak benn gileem ak trois tonnes de riz jox leen aussi cinquante pack ndox loolu lañ defee aussi waa Rawdu Rayaahin jox leen ndox. yamuñu si loolu ñu dem ci quartier yi nga xam ne ñoo ne ci quartier périphérique yi lu mel ne Daaru Minaan tey jii ñu ngi fi doon fi def action jox fa ay nag jox fa ceeb ñu jël fa 100 ménages yoo xam ne ñoo leen jox seen màggal loolu def nañ ko te pareeguñu loolu dañuy tàmbali mais xat na ñu ngi bëgg a continuer pour daj ci ak Touba yëpp ñu daj fa pour fu ne suñu loxo dem fa ci fondation bi. waaw ni ñu organiser woo avant màggal lu ko jiitu lu mat 15 jours un mois. ñu ngi préparé def ay réunion di waxtaan di xalaat nan la ñuy mën a doxale suñu action soxna si moom ku ne xam na ne amul jot gis nga ko ay visitam ñu koy seet si amul sax jot pour lijjanti boppam ndax xat na xat na xataay boo xam mais nag yàlla baaxe na ko am na ñoo xamante mën nañu doxal fondation bi mën nañu taxawee fépp yow loolu nga doon laaj loolu lañu si tont moom mënul bouger fii mu nekk ni parce que xat na mais am na équipe boo xamante ni bi équipe bi mën nañu def liggéey bi ñoom ñoo dem dem action yi